mangi ngi tudd Abdoulahat ndoy nekk porte parole bureau marché central trésorier bureau des jeunes bu UNACOIS régional di wax ci turu délégué marché central président départemental bu UNACOIS ak suñu turu président UNACOIS régional aladji Dam Diagne bon point de presse bi nak liko waral moy dañu am ben nouvelle bo xamanteni ni dañ ko jot biñ ko jotee it ñu ni nañ ko jàllale ci suñu mbokk commerçant yi suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo bokk nekk marché bi nouvelle bi mooy dañu jot ci autorité yi dañ doon sàkku ci ay jamono ñu gis ni euh, lakk yi bari na ci marché yi te daanaka ñaari bu amee sapeur sax bu ñëwee du mën a def intervention am ni ko war a defee ndax euh, xat-xat yi bi nga xamante ne it dem nañ ba àgg foofu it A ah, autorité yi dëkk bi jël nañ seen ay matuwaay muy maire muy préfet ñu xamul ni ñu kat alxamis bu ginnaaw suba bii bu suba nekk la 27 dinañ def seen opération bépp commerçant boo xamante ni ak képp ku nekk ci marché bi am nga bagage boo soxla te teg ko ci yoon na ko fa jëlee ndax bépp yoon boo xamante ni oto war na faa jaar luñ fa fekk jàpp nañ ne lu baaxul la dinañ ko yóbbu nit nak ñu ngi sàkku ci suñu mbokk commerçant yépp loolu bañ leen a bett comme que ñoom dañ ñoo jiital ñu nekk seeni tànk nekk seeniwu làmmeñ mënuñu ludul buñ ñu waxee ñu dem yóbbul leen waaye ñu buñ ñu joxee fële ñu ñëw indil leen nouvelle bi ñu am nag mooy képp si ñoom koo xamante ne yor nga bagage boo xamante ne nii soxla nga ko moo xam table nga yor moo xam da nga koo ba sa buntu place waaye képp ku nekk si kaw yoon wi daal na nga ko wàcc te jëlee fa la nga fa soxla bala ñu la faa fekk di yóbbu say bagage benen bi ci desit moy ñuy sakku nak ci commerçant yépp ñu xamné marché ñett ko bok moy ki romb di dem ak ki jënd ak ki jaay ñun ñëpp nak war nañu mëna bok marché bi de kenn du déranger kenn tali bi nañ ko ak auto yi territoire bi ñu bayé ko nit ñi ñi ci jaar bu ko défé commerçant bu bi client bi ñëwé dina mëna taxaw ci place am mëna jënd bu ko défé lu bari lu daan am ci marché yi muy branchement clandestin yoy yépp dina mëna wañéku ñuy profité tamit si occasion bi di sant autorités yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi muy maire yi fi nekk yépp ñu ngi leen di sant di sant it préfet bi nga xamante ne nii moom mooy préfet départemental. ndax gis nañ ni yàgg nañ ñoo dégg ñun commerçant yi ñuy coow si ay affaire foire mais dëppi lors dal am na ci dëkk bi kon ñu ngi profité di ko ci sant ndax dal googu li ko indi mooy nungoo waxtaan ak ñun du caagi nekk ne commerçant yi ñoom ñoom moom dëkk bi ba lu leen am fi lu leen neexul du fi am waaye ab dëkk dal da koo yor. waxtaan nañu ak ñoom ba ñu nangul ni ñu ni dinañ woo foiris yi woo tëggkatu foire yi ñu toog ñu waxtaan ñu mën ko organiser telle sorte que ñoom dinañ mën a organiser li ñuy organiser aussi ñun ñu mën a nekk suñu marché tey coow du am kenn du yàqal kenn dara ñuy sant tamit préfet bu baax a baax ci événement yi fi jaar moo xam korité moo xam tabaski si sécurité bi nga xamante ne am na ci marché yi yu bari daanañ ko fi dégg ren dégguñu ko fi nit ñi jàll nañu a jaay jaay nañu sant nañu yàlla bu baax kon ñu ngi koy sant bu baax di wax ni liggéeyam lu nan ko. salaamaaleykum wa rahmatullah man maa ngi tudd jili Ndiaye di délégué de quartier bu Escale Nord comme ni ko sëñ Abdou Lahad waxee ñu ngi wax ci turu président ak riverain yu Escale ñi nga xamante ñoo dëkkee koñ bi te nga xamante ne ni marché central buñ koy wax yàlla dafa dogal ni ci koñ bi la nekk. mesure la nag boo xamante ne ñi ngi koy rafetlu ndax euh, yàgg nañ koo bëgg waaye xëy na yàlla nga koy soog a dogal lu jiitu tabaski waxtaanoon nañ si ba ñu ne woon nañ leen may tuuti ba tabaski bi jàll ndax boobu ay xat-xat am na bi mu jàllee itam tamxarit jaaraat na fi te dara xew kon bu préfet demee ba nga xamante ne jël nañu décision pour ubbi mbedd yi nga xamante ne ni dañ koo defaroon pour ay oto jaar fa trottoir yi ñu tabax ko pour nit ñi bañ a jaxasoo oto yi ci kaw tali bi ñoom ñu fay dox loolu moom day nekk lu ñu mën rafet ndax suñu koñ bi xat na xataay goo xamante ne ni te dara waralu ko lu dul ay mbedd yu fàtt tilim na insécurité kon si turu waa koñ bi yépp ñi ngi rafet lu décision bii nga xamante ne ni autorité yi jël nañ ko waaye di leen ñaan nag mu ànd ak suivi ndax itam bu dee dañ leen fiy jëlee ñaari fan ñetti fan wala benn weer ñu dellu siwaat mu gën a yées nam meloon kooku moom wax dëgg yàlla jarul woon di jëf jëf joo xamante ne mën nañ ne yàqum xaalis lay doon ak yàqum énergie dañuy jëf jëf joo xamante ne ni ku fi jaar xam ni fii koñ la fu oto war a jaar oto jaar fa fu nit ñi war a dox itam ñu dox fa ndax ndax sécurité mën a am si dëkk bi comme ni mu ko waxee ñaanuñu yàlla ay lakk wala ay yenn ji yi di fi am waaye bu ko yàlla dogalee itam sapeur buy egsi dina mën a egg si jàmm mën a gaaw a faj li muy faj kon daal si gàttal loolu nañu amoon kàdduñ si sant di ko santé ñi nga xamante ne ni ñooy autorités yi jël décision yi di ñaax itam ñi nga xamante ne ni ñoo dëkk si koñ bi wala ñi nga xamante ne ni dañ faa am seeni bagage mu tegu dañ fee dëkk wala dëkkuñu fi bagage bu ñu fa soxla nañ ko teel a jëlee foofu ndax ñaanuñu yàlla kenn dafa yàqule je m'appelle Mamadou Diam je suis le secrétaire général régional de l'INACO Diapo. Euh, nous vous avons convié à cette rencontre pour informer nos membres de la décision prise par le préfet du département de Thiès pour désencombrer les artères du marché central. C'est une situation qui a beaucoup perduré et qui cause énormément de préjudice aux, gens qui sont au niveau du marché central. Ces temps-ci, avec les départs de feu qui se, font, de façon régulière, avec les incendies au niveau des marchés, si nous laissons cette situation perdurer, on ne le souhaite jamais. S'il y a un début d'incendie, un départ de feu, les véhicules de secours n'auront plus accès au lieu du sinistre pour sauver les gens. Maintenant, c'est cette, situation qui a permis le préfet de prendre une mesure pour désengorger les artères du, marché central. Maintenant, nous, en tant qu'association, nous avisons nos membres pour toute personne qui, a, qui occupe la voie publique de les quitter et de, en, tant que personne et de en tant que bien. Parce que la décision est déjà prise, euh, le marché sera désengorgé. Maintenant, nous remercions les autorités qui ont cette mesure parce que ça fait un bon moment que nous leur demandons d'effectuer nous euh, d'effectuer cette opération, mais la seule chose que nous leur demandons, c'est qu'il y ait un suivi, parce que faire euh, partir les gens, mais sans qu'il n'y ait pas de suivi, quelques temps après, la situation devient, pire, c'est pas la peine. Maintenant, nous prions à nos membres de se conformer à cette mesure et de faire quitter les lieux pour qu'il n'y ait pas de problème entre eux et les autorités.